ne li man wax ci Ousmane yëpp dëgg la ana s'il te plaît génnal nga wax nga dimbale ma dama sonn ana ma taxaw ci fenêtre ana mënuma génn mënuma dem fenn ana tout le temps maa ngi si nekk ana je sors pas naanatuma ba mandi ana du ma nelaw sax guddi ana s'il te plaît génnal nga wax nga xamal nit ñi li ma wax dëgg la parce que je sais que xam nga na li ma wax dëgg la tu connais ton génnal nga wax ngir yàlla dama la ko ñaan génnal nga wax dama sonn justice Sénégal bu fekkee ne du ma ngeen wax ma bu fekkee ne du ma ngeen wax ma ma dem xooli feneen bu fekkee ne mën naa am justice feneen ngeen wax ma ma dem xooli feneen xaar bi yàgg na dama sonn un an ma toog di xaar fekk dara du tax ma bàyyi lii dara du tax ma génn ci ci tànk yi ma taxaw dara du tax ma jóge fa force lay am justice. Ousmane bordel lu tax doom wuyu si. ana xam nga ne li man wax Ousmane yëpp dëgg la ana s'il te plaît génnal nga wax nga dimbale ma dama sonn ana mënuma taxaw ci fenêtre ana mënuma génn mënuma dem.